xootinaam di jàmm yi ñu ngi fii ci kër Soxna Astou Boury Mbacké taalibe Maam di préparer li xam ne mooy ñëw président bi ci biir Touba ak li ko wër soxna si maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo bi di la ziar bu wér tey sant bu baax may def dara sama baay bu baax bi di sama sëriñ bu baax bi di xalifa général des Mourides muy sëriñ Mountakha moom sëñ Bassirou maa ngi koy ziar bu baax. ko ñaanal yàlla na sama borom gën a yokk aw fanam te yokk wéram ci barkeb Serigne Touba barke maam Seeraay ma Fall. soxna si xam na ne dugg nañ ci campagne bi sa mën naa ne la li ci des bareetu ndax vingt 24 jours rek la sa dugg nañ ci tey mën na nan ngeen di préparé woo pour falaat président deuxième mandat. góorlu rek préparé wu takk bu baax a baax a baax lépp loo xam ne xalaat nañ ne day yàq ñu jël ko teg fële lépp loo xam ne xalaat nañ ne day defar ñu xëcc loola li may bëgg nag nit ñu bakoo tey góorgóorlu ci mooy bàyyi nës-nësal fekk lu yàqu ñu jëpp jël ko di ko nës na sa loolu laa bëgg ñu bàyyi ko waa Touba ngir bëgg a seeral xolu waa Touba kon ñun nañ ko delloo ndam li waay te bàyyi vote sanction yi bàyyi mer mi dafa am jëmmi doomu aadama yoo xam ne jëruñoo xool ndax jëruñu bàyyi parce que ñooñu président Macky li leen yitteel mooy ñëw dóor seenu xaalis lekk ko ba lëggatee ñu dem toog lii mi leen moo leen yitteel ak man la man la man la fan yëpp yaa ngi dégg wax ji ci télévision bi ñenn ñi dem ci télévision bi di tararari di ratatati mel ne mu seko mel ni du ñu ay nit ñu yiw dem ci rajo bi di tararari naan man la man la man la fi mu ne boo gisee vote sanction yu bari di am dara waralu ko lu lul tararar yooyu ak jël lépp ñëw na salaamaaleykum jël lépp akimoo ko ne man la te ñëpp xam nañ ne mënoo dara da ngay dóor matt loolu nit ñi xam nañ ko léegi nag loolee di am nag bari na fi mu ne nii ñoo xam ne ñu ngi mer ñu ngi préparé ay vox sanction ñu ngi def naka sa dul noonu ngir jënn jëmm nañ am ful la jël jëmm jooju teg fële manko ñun ñëpp fas yéenee jàppale président Macky Sall ba mu am ndam ci Touba xanaa nit ñi seen yaram du daw nañ xool autorité la Touba bi macha allah belki dee ko tudd parce que temps bi mayewu ko mais ñëpp nañ leen àndandoo góor góorgóorlu manko fas yéenee jàppale président Macky Sall man daal lii laay ñaan ñëpp macha allah comme ni mu ko waxee rek mu ne na ñëpp góorgóorlu takku pour jàppale président Macky Sall soxna Asu dañu gis bu yàggul rek euh, am coow lu fi amoon ba waaj sa waajur yi nga xam ne ma sa waajuru jigéen génn àdduna ba ministre de la femme ñëw fi set si la maam Xëri Mbàkke ndax ba coow loolu jeex na ndax ñëw na seet si la jaale si la sa waajuru jigéen woowu waa coow la de man ba ko sama sang bu baax boobu di sama baay di sëriñ Abdou samat moom sëriñ soy bu keroog ba ma woowee ñaan ma njekk jox ma ndigal keroog laa bàyyi coow loolu mu tëdd keroog laa ko ba la ca des nag mooy moom su bàyyee affaire am la su bàyyiwul affaire am la man faale ma loolu la ca toppitam muy mbiru sama yaay jooju wàccul bi na ma ko ñëpp ñaanalal ndax ku mat a ñaanal la ku liggéey la ku sonn la te xam naa ne liggéey na waaye ñun tamit añ nañu macha allah mbooleem nag ñi ma bokkal Serigne Touba nga xam ne maa ñoo ma bokk Serigne Touba te muy dëgg te amul leneen ñoo ñooñu ñëpp ñëw nañu jaal si ma moom nag. ndaw soo su ngay wax ni moom laa doon joteel kooku gisuma ko dégguma ko gisuma ndeyam mais gisuma ndawam mais faalewuma ko parce que mboolem ku ma bokkal Serigne Touba rek ak ku ma bokkal parti politique bii taxaw nga ñëw ne ma si gindikaal moom nag bu dikkul affaire ma xaaruma ko séentuwuma ko soxlawuma ko it nag loolu mooy problème bi. kon daal ñëwul yónneewul ndaw mais xoolal kooku wax ak moom sax wax ju yàqu la ci man man dama ko jël teg ko na le moom wax ak moom wax ju yàqu la waxuma ay waxam ñëwut yónneewul ndaw kippeewu ma ko faalewu ma koy ndax man ñi ma bokkal Serigne tuubaay ñëpp bu may xool dama naa moo ca manqué kon menum picc mën ta yàqum ndaje faalewu ma ko soxna si xanaa xamoon ne kenn desul nee naa la ku des man faalewu ma mais kenn desul ku mën a doon rek muy ca cocc ba cosaan nit ñu baax ñëpp daal laa wax nit ñu baax ñëpp nit ñi nit ñi considéré nit ñi nit ñi faale ñëpp ñëw nañ sama dëkk waay bi jaal si ma tey sonn ca nag def ci seen alal boole ci moo tax ku dikkut faalewu ma la man nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. lu di rëddu sancaan rek moo moonu mayum ndox ñun waa Touba Thiawéne man doom laay waxee boo ma fekkee ba may jàppanteeg soxna Astou ku ma gis danga ma yërëm waaye fi ne nii tubaar fakalla macha allah namatuma dara. Mbacke Balla ay sa buri sëriñ Mbacke maaram maa ngi koy ñaanal ci barke maamam lu mu bëgg fu mu bëgg yegg yàlla na ko fa yàlla ak sëriñ Touba eggale te danoo bëgg nag yow Macky sàll nga gestul nu nag sunu baay faal bi danoo bëgg nga gestul nu ko. ndax nag ay sa buri kenn du moom jàpp na dëkk maamam bi te yàlla tax te lu fi def rek maamam la koy defal kon nag jàppale ko te yàlla tax. moom la ñu xam moom la ñu àndal nun nag soxna su Boury Mbacke nun duñu ko ni man nga ko am nga ko def ko déedéet soxna su Boury day ne ci dëgg di def di dëgg di ànd ak dëgg. tudd mbokk baayam sëriñ Mountakha mi sëñ Bamba tey xaadim borom jumaa jeey baayam Balla Aïssa Boury sëñ Mbacke maam maaram it baax waaye sëriñ Cheikh Astou nag. soxna Asta Fall la yaayam tudd maam Cheikh a ko jur may sa bige ku ma faal mi ñu booleeg faraxati ca njaar ndéem sëgg benn sëgg benn aras jaayu daa bay maam say sama waa ji yaay sénégalais sa lat joor ngoone lattir mi ci sawaroo bare yaay sénégalais di ànd moom koor muy joxe suukar koor ca ci la ko def caawen fan fa deman am na fa mat juróomi téeméeri nit daara mi nam fat ndayam ju baax ji dëkk asu jóob jéer mii fa mu dëkk am kara ba ñuy ñëw ñeenti kaar asu jub jëlee na ko daara koñ bii ma nekk li mu fi jëlee ci kaar keroog kenn xamul nu mu toll nun asoxna su bëri la nu àndal de mënunoo lim nag li muy def waaye moom la nu àndal tey moom la nu àndal ëllëg mooy borom mbooloo mi mooy def ci dëkku ba maamam bi di sëñ Bamba te tax kon moom la nu àndal danoo bëgg ku ko jàppale ku ko geesu ku ko dimbali nag keroog ba ñu indi giré ji ilaa Touba bi juróom fukki kaar yóbbu na ko Ah, juróom fukki kaar yóbbu na ko balaa maa ramay saak Sadio nag moo bari mbooloo nun de moom la ñu àndal ginnaaw yàlla moo ñu tàggaleeg rootaan wóor na yàlla dëggu dëggu la nag man li tax ma ànd ak moom ànd ak Mbacke fay mais dafa dëggu suñ sancaan yi nag ñëpp moom la ñuy waxtaanee moo ñu fa indi robinet yi dégg ñu courant te dinañu ko defal dañoo bëgg rek Macky Sall jàppaleel ñu ko waaw